subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah su ko defee kon xanaa ñu ñaan yàlla rek hmm? eh, jàmm ci réew mi ñaanit ci lii fi nekk ah mbas mi fi ne la Euh, ñi di ko wax coronavirus ñi di Covid 19 lu la neex tudde ko ko ala kulli xaal feebar la bu am mu wóor addina bi yëpp it wóor ñu ñun wóor addina yëpp ne feebar bi lu am la lu existé la waaye mu wóor ñëpp it ne bari na lu ci laxasu loo xam ne bokkul ak feebar bi bari na lu laxasu loo xam ne bokkul ak feebar dafa doy waar dem na imposé nañ ci addina bi loo xam ni kenn xamul fu mu doon barki demb rek maa ngi koy wax ma ne parce que daanaka andil nañ ñu yomal xiyaam xam nga yomal xiyaamati eh, <laughs> boo xoolee fi ñu toll nii ah xam nga eh, yomal xiyaam nag lu bari itam yàlla bi bi ñoom li ñu def nii tey andi ko tubaab yi andi ko hmm? organisation mondiale de la santé tubaab yi andi ko ba nit ñi gëm ko état bu gëm ko di ko def loolu yàlla moo. moo ko bëggee noonu itam ida jaat saaqatu yowma yafirru lmaru min axihi wa ummihi wa abihi wa saaxibatihi wa banihi li kulli mri'in minhum yowma idin sha'nun yuxnihi daanaka loolu la ñuy dund saaqa boobu yàlla doon wax te kenn xamagul lu muy firi mu ne saa yu amee eh, ba nga xam ne nit day dow doomam nit di dow nit di doow ndeyam nit di doow baayam nit di doow jabaram ndax ku ne am nga loolu foofu lañ nekk sa doom sax bu tuslee nga daw sa baay bu sëqatee nga daw ah sa jabar bu sojee nga daw ko parce que ku ne am nga loo doy foofu lañ toll xam nga dafay am loo xam di toujours yàlla da koy andi itam pour fàttale ko gis nga boo demee ci suuratul waaqia yàlla ngi wax afaraaytum ma tumnuuna a antum taxluquunahu am naxnul xaaliquun ndax gis ngeen li ngeen di def muy jaare ci man yu di nekk doom ndax yéen koy sàkk koy sàkk kumul mawt man maa dogal ci yéen de maa dogal loolu an waxaat afaraaytum maa taxrusuun Nah ya eh, antum tasraun wa am nahnu zari'un tak ngeen ngeen di bay ndax yéen a koy wala man maa koy màgg continue afaraytum alladi tasrabun loolu yàlla wax na dak ndox mi ngeen di naan antum asrabtumuhu minal muzni am ndax yéen a ko wàcce wala man maa ko allati tuuruun tuuruuna a antum anshatum shajarataha am nahnu munsi'un ah nahnu ja'alna akidatan gis nga foofu yàlla yi mu wax yépp bu ci nekk nee na su ma neexoon ma def ko nangam su ma waaye bi mu ñëwee bi mu nee safara ndax gis ngeen safara wii nga xam ne ci ngeen di nitu di ci togg ndax yéen ko keree wala man maa ko keree daal di nahnu ja'alnaha tadkiratan maa ko def pour ngeen fàttalikoo ko safara wu ëllëg xam ne safara am na ëllëg donc kon yi am yëpp dafay fàttali la daanaka kon lii xew nii ci jullit yi liñ ci war a jàngate lii xew nii ci ci ci ci ci ci virus bi ñuy wax corona li ci xew daf ñu war a yowmal qiyaamati jooju yàlla waxoon ne kii nit dina jabaram nit doow doomam nit doow nekk kon yàlla na ko yàlla jeexal ci àddina bi yàlla jële ko fi ci faatu yàlla ne yàlla jégal yëram leen ñi ci des ci ay lalu hôpital yal leen yàlla wéral fu mu duggagul woon yàlla bu mu fa dugg fu mu dugg yàlla na fa joge ci daraja yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci barke maam Cheikh bu naama mi ñu doon waxtaane wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu subhaanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah